إله إلا الله لا Moussa Fatika la di ko ñaanal lool gudd fan gu ànd ak wér ndax nun de ba ne waajuram lan àndaloon waaye manqué wul dara ci waajuram ba ba mu ñëwee daa jël waajuram fa mu tegoon liggéey ba fa la ko jëlee jëm kaw yokk ko nag ba kenn ku ne teg sa bët kon no ngi ñaanal serigne Cheikh ndigal mustapha Sa borom guddul fanam wëral ko ba lepp lu mu yene liggéeyal serigne Cheikh Fall Baye góor yene ko liggéeyal way juróomi serigne Cheikh ndigal sa borom agalé ko ñong koy sant bu baax mboolem taalibe ak soppé yi am nañu ciofel ci mom lool di ñaan dal lepp lo xamni yene nako té bëgg nako yalla nako sa borom defal ah, di sant bokki taalibe yi nga xëy danoo and bi fi sëñ bi juggé ba lég sëñ Moussa and ak serigne Cheikh ndigal kalam yi muy tank tay tey ginaaw arrière areeruñu saa su ne rek ñu ngi ci bëggu sëriñ bi ñaan saa borom defal leen kattan wéral leen yokk seen i xéewal lool ba kenn ku ne loo man ren bu dee nee nga mën lu kopp wax dëgg borom Pastef lañu borom jàmbaar ay jàmbaar lañu ñu am yéene lañ ci sëriñ bi kon nag dañuy ñaan yàlla mi nga xay dara taw ko di ñaan ci barke maam Cheikh Rafal ak weeru koor bi ñu nekk yal leen saa borom jàppandal addiye te jox leen xol murit boo xam ni su waxtu yu jotee tee su nañu mën koo jëf ñi ngi sant mboolem taalibe ñi fi teew soppee sëriñ bi ñëpp ñi ngi sant rakki sëriñ bi di sant euh, soxna yi sëriñ bi di sant mboolem njabootu sëriñ bi bàyyiwuñ kenn di sant njabootu sëriñ Cheikh Fall góor gi yëpp di sant mboolem murid yi fi teew yëpp bàyyiwuñ kenn la leen ci mën a sànni kàddu mooy daa donnu taalube juddi si taalube ndax kuñ ni kuy sa kuy sa sëñ Mun Moustapha maamam ji jur baayam di sëñ Cheikh Fall bàyyi góor di sëñ Moustapha Fatikala kon bu ndugal juddee foofu rek la mu war a ku ko ku ko dégg rek war nga xam ni kii jëf jëfkat war la doon ba noppi Pastef la war doon. way juróom it doonoon si Moustapha Fatick la doonoon kenn ci kër sëñ Cheikh Fall Baye góor doonoon ko fonkoon lool sëñ Cheikh ndigal mii defoon ko way jur man de daanam wax ni ma sama way jur moo ma ni sama lal bi boo saa yoo fi noppee gis ko fekk mu toog jàppal ni man mii la te yàgg na maa wax ni ma sëñ Cheikh Roqe mii la defuma ko man way jur defuma ko ab sëriñ way jur laa ko def bët yi ma doon xool sëñ Cheikh Fall Baye góor rek loolu laa koy xool sëriñ Seex Ndigal kalam foofee mu tegoon foofe baayam tegoon sëriñ Seex Ndigal foofe rek la teg sëriñ Seex Ndigal da koo def muy kilifaam def ko muy baayam def ko def sëriñam loolu daal mën nañ ko cee sànni di ñaan saa borom daal guddal ko fanam lool yàggal ko sëriñ bi ndax am na yéene lool liggéey sëriñ Seex Ndigal waaw lépp loo xam ne si ne jëf na ko nii gen la mu yéene woon ëpp na lii foofu yéeneem daal lu kawe la lu rëy lool la yàlla na ko saa borom defal nag lépp loo xam ne bëgg na ko te yéene ko mànd koog mboolem taalibe te bokk jëf ko kaddu yi nak xamna naa neexul waye nak ñu sant yalla rek. wa rahmatullah ah, mbokk talibé yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa baax di leen jox way bi te rafetlu seen teewaay ci biir kër gi. Ah, ñu nuyu ñi nga xamanteni ni ñoom fi tew di Lamp Fall TV ak academy TV ak mbollem ñu andal ni daru Mboy TV ak euh, islamic TV ñu ngi leen di ziare bu di leen jox way bi ci di rafetlu seen teewaay ci liggéey bi ngeen and ak ñun ci biir kër gi ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci jaajeufal bu baaxa baax ndax euh, daf ngeen ko ci kër gu ko mata defé ndax euh, kër gi ngeen ñew tay dafa doon kërug ngërëm doon kërug Pastef doon kërug ñu am jom ci ñu sekk ko ay ngor ay gor ay gor yu goré tamit nek ci biir na buñu euh, buñu buñu joggé ci cant yoy rek ñuy gëna sante suñu jëwriñ yi nga xamanteni nit ñoom la ñu bokkal kër gi e, di jëwriñ yi nga xamante ni ñoom sëñ Moustapha Bey sëriñ Daam euh, sëñ ma sekk ñoom ñii euh, maam Baye Saliou Fall ak ñoom sëñ Modou Fall xam naa damaa dugg ci lim dafa mel ni damay bëgg juum waaye bu ma tuddoon Moustapha rek daanaka day yóbbaale ñëpp waaye ñoom it dañ leen amal ak cant ndax ñu dañoo doon dañoo ñoom ci liggéey bi nekk ci daara tarbiya yi ñoom ñu nekk ci biir kër gi ñu bokk ak ñoom liggéey bi mu rafet lool bëgg si fii ndax ak njaalbeen kët dafa am solo ñoom ñi seenu njaalbeen kët dafa rafet kon dafa mel ni tey bii tey jii bisub tey jii dañuy jàpp ne ñoom bisum ngërëm la ci ñoom kon dañ leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm ndax li jóge ci xol ci xol rek lay delluwaat xol yi dafa fees soxna si mu mel nii nag kon maanaam dañuy gën a doole sant rek euh, fi ñu war na tàmbalee lañ toll nii tey di sant euh, Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Touba Khadimu Rasoul di ca dolli taftal jëwriñam ja Serigne Amdi Mbudu Mbenda di ñew di gëna doli sante Serigne Cheikh Ndigal Fall mi fi khalifa Serigne Cheikh Fall Baye gor tay ak yi rakam ah, di di di di baye ci Serigne Cheikh Ndigal Kala ah, di serignam doon it jëriñam eh, moom ñu ngi koy ziaré bax diko di ko jox wàccuwaayam ah, bu ñu fi joggé gëna dolé sante tamit suñu suñu sëriñ suñu jëwrin Serigne Cheikh Ndigal Kala bu ñu ko sante sante ay rakam ak ay waajuram ay bayam ak i yaayam ñu ni kër gi di leen jaajëfal bu baax a baax ndax soxna si ni ma leen ni euh, kër gi këru ngërëm la rek foofu laay dolle pas dollee euh, dollee toftal ndax euh, loo gis lu nekk rek day am pas-pas pas-pas nag am na solo waaye bu dëgër bi da ciy gën a am solo lii lépp nag pas-pas bu dëgër la ndax sëriñ bi day mel na ni noppal na taalibe yi ndax li tax mu noppal taalibe yi mooy maanaam maanaam maanaam maanaam soppeem yi nga xamante ne nii dañoo teew kër gi boo xoolee soppe yi ñoo ëpp doole ñoo fi ëpp doole taalibe yi la wax ndax taalibe yi bàyyi nañu léegi lépp ndax soppe seenu bëgg moom la kenn xàmmeewul ci ñoom ak seen wasila kon dañ leen di gën doole sant bu baax a baax ñoomit di leen jaajëfal waaye hmm, waa Serigne moom euh, mën nañ laa wax ci moom ci li ñu xam waaye wax si moom dafa jafe ndax euh, Serigne Cheikh Ndigal maanaam maanaam dafa bari ay ngërëm ci ni la ko mën a ñun dañoo japp dañ ko gis daf doon wax xamanteni ku bari ngeerem la ndax man nañ ni njabatu seigne touba gep gërëm nañ ko ndax seigne cheikh Ndigal fepp lu baax fu lu baax nek rek ma ngi fay duggal loxom kon da fay japp ni manam njabatu mam Cheikh ibrahim Fall gépp wasilaam lañ ba pare tamit mu mu mu sukkandiku ci daru khodos bok ci waakar seigne mudum sa Musaa tay seigne sëñ Mustafaa doon jorinam waye te seigne Cheikh Ndigal ñu di la xamal ne la ni ah, ah, day sëriñ bu day sëriñub tarbiya day jàmbaar day day sëriñub tarbiya doon jàmbaari don doon doon doon doon jàmbaari murit yoonu murit ndax sëriñ Cheikh Ndigal bo xoolee xidma rek ah, ci nga koy gis waaye lu lu xidma rek man nga ni sëriñ Cheikh Ndigal bokkul bokkul ci foofu ci lu di jang rek jang nako ko ba xam ko waaye eh, sëriñ Cheikh Ndigal fi nga gis rek moom mooy xidma xidma googu nag ci la ñuy sant suñu borom ba di ci def euh, diko def set mom bam wacc suñu biir kër gi ni ni tay suñu sëriñ bi tay di ndigal kala fofu rek lañ ko gis ci mom ci xinma rek la nek di ci dox ndax mbollem xel yu bax yëpp bu ndaje tay bu ñëwé fofu rek lañ lañ lañ yobuat ci xinma rek lañ yobuat muy liggéey jaamu yalla mbollem limi def ni mbollem limi def ni ñun ñoko ci sigal waye mom bëggu ci saxu gëreem bëggu sax ku ci wax kon mom dañ koy gëna dolé sante yalla bu baax té diko ñaanal bu baax baax baax suñu borom euh yokku fanam yàlla na yàlla yokku ngoram ak sefam serigne Cheikh Ndigal euh, yàlla na yalla gëna dëgeural dëgëral mom amuñu payam soxna ci xol yi mo fess té liñ bëgg wax mënuñu ko kon dañ yémal fofu kaddu yi rek. kër gi de ñu bari liñ ci wax rek ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balax ñëpp tey balax ñëpp tey ñaan suñu borom subhanahu defal ñu. ay taw feex yu yaato yaatu di jaajëfal sa mbokk yi nga àndal waaye di jaajëfal it mbokk yi daayira bi waaye la mbokk yi jëwriñ yi di la wax ñi kër gi moom kërug Baay Faal la rek yi fi Baay Faal rek a am ci la ñuy xëy ci ñuy gont saa bu ñu ci la ñu nekk mu di ak Baay waaye bëgg na ci Baay Faal muy kër goo xam ni kër Sëñ Cheikh Fall la kër Sëñ Cheikh Fall na ku ko wax xam ni ak Baay Faal bu fa sosoowul eh, man naam naa lu fa jóge muy ci liggéey ci li Maajo Wade wax léegi muy xet ma ñi raw ñëpp li ñu rawee ndax Cheikh Ibra daan wax euh, dab nda euh, dab ndab dabee ndab moo tax suñu Cheikh Ndéel bi ñuy foofu la teg tànkam moom di ma lépp lum yaakaar ne daal lu baax la ci kër Sëñ Tuubaa dana ko jëlee kër Cheikh Ibra yóbbu kër Sëñ Tuubaa ci loolu la nekkit ci loolu tamit ci la saxal taalibe yi ba ci ndigal Moustapha mi it jàpp naa ni ci loolu la nekkit ndax ci moom lay xool moo tax mu jàpp ni kër gi moom ak Baye Fall rek fi nekk bu ko defee lii moom muy liggéey Cheikh Ibra bi bi nga xamante ne moom la commencé woon commencé ko ci fukki ndab jëlee ko kër sëñ këram jëme ko kër sëñ Tuubaa muy weeru koor eh, muy liggéey Cheikh Ibra bi gën a mag moo tax lu ci waaye def deesu ko xeeb waaye deesu ci naw dara moo tax sëriñ bi saabu at mi dikkee rek mu yokk ba ñu yëg ko mbooloo mi yokk ba yëg ko waaye di ñaanal taalibeet ñoom it ñiy jëf ñoom it ñu yokk ba yëg ko ndax dañuy wax ni lu sëriñ bi defit taalibe yi rek koy def sëriñ bi moom taalibe yi la am taalibe sëriñ bi la ñu kon di ñaanal yàgg ak yokk wér ak wérle def ci poche yi dara bañ mën a ñuqi di jox defal sëñ bi kon loolu mooy liggéey bi ak Baye Fall moom ñuqeek ñàq dong la leneen nekku fi ñoom jàng nañ ba xam li war a xam waaye dañu ko fa ñukk liggéeyal sëriñ Tuubaa doy leen sëkk ñu ciy jëf képp lay kartan kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sëriñ bi liggéey bi mu sumb di liggéey sëriñ Tuubaa bi nga xam te moom la jëm ci kër Cheikh kër Cheikh jaarale ko jëwriñ bi suñu seex ndigal mu suñu seex ndigal mu suñu seex Fall yàlla yokk ko te yàlla yeggale liggéey bi barkib sëriñ bi di ñaanal taalibe yëpp jàmm barkib sëriñ bi yal na yàlla dolli yal na yàlla yokk bi jaay see dafa jóot ta sëriñ si ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax rakkam yi ñëw nañ léegi ba jébbale ko muy rakkam yi nga xam te ne ay ay astaghfirullah mag ay rakk yu eh, di ay soxna wala ay mag yi di ay soxna ñëw nañ ba ba siyaare ko ndax gis nañ muy jëf te ñoom it bëgg nañ ci dugal seen loxo ndax sëriñ bi day wax ni lu baax lu ne dee ci dugal sa loxo luy dem yóbbaale la ngir bu yegg amee ñëpp mën a yegg kon loolu it daa mel ne ñëpp teg nañ seen bët ba kenn ku ne yaa ngi jéem a dugal sa lox ci sa jëfi sëriñ bi ngir mu jëmale ko ci kër sëriñ Tuubaa gi nga xamante ni lu baax lépp fa la jëm kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ko sàkku jeen te di leen jaajëfal lu yaatoo yaatu kon loolu moo doon kàddu su fekkee amoo yeneen laaj yoo xamante ne yaa ngi dénk xanaa fi mu teg tànkam rek ñu koo teggi muy teg ko ci taalibe teg ko ci yoon wi nga xamante ni moom la euh, ndigal mi nga xamante ni muy seigne Cheikh Ndigal bi wajuram mu fasiyene di xol ci kawam xol ci mom su mu teggi tankam rek mu bëgg fa tek xagnu du yomb waaye mu gem ko fa tek rek ndax dañuy wax ni bo jaaré ci yoon xagnu man nga ngaa bañ yegg waye man nga bañ a comme min ci yoon yi dañ koy ñaanal yoon yu mu jaar rek mu baña teggi tankam bu yeggutit man nañu bañ a jërëgë jëf jë wax deug yalla liñ ci sànni du bari ndax ñi fi jaar wax nañ li li ma wax li wax nañ ko samay kàddu moom fi muy jëm rek mooy sant taalibe yi ak magi taalibe yi ak sant kër gi te kenn ku ne xam ne ñu bokk teew fii am na jamono yoo xam ne si maanaam lii fi agsi fii daanaka moo doon suñu bëgg-bëgg daanaka jamono ñu toll mën naa ne ña nga fa toll kon dañuy santaat yàlla suñu borom tabaraka taala mi ngi doolee kàtt nañu sàmm nu ban mën agsi fii ah ndax sunu waaju waajuróom kii di ndigal kala waajuróom fi nekkoon suñu baa faati kala maanaam ku ko xamul it dégg nga aw turam ci pastéefam ci jëf ci kii di magam sëñ Ndigal Fall mi nga xam ne si bàyyi góor moo ko ne woon boo ma gisatul ci bu taaw mooy bàyyi góor da koo wane jëfe ko ci xel koom mboolem ndaje mboolem liggéey yu am jaajëf rek sëñ sëñ Faafat Kala mu doon jëruñje moo doon jàmbaar ba làq ngërëm ah, Baye Fall nag lii mbiram wiiri wiiri fu mën a wiiri ak fu ak fu mën a jóg ak fu mën a jaar li li ko am eh, importance mooy ngërëm fexe ba làkk ngërëm ngërëm nag moom il faut nga jëf suñu Moussa Fall Fatick Kala neewoon na ma Moodu mën a mën a ko Fall mën ma jërëjëf jege na ay tuñ loolaay ku jëful ko dégg kon nag a Baye moom jëf jël rek la Serigne Touba moom amul naxul kenn Cheikh Fall naxul kenn lu waay jëf mu jox la ko kon nag nun taalibe fii nu agsi yàlla sama moom dogal na agsi bi nañ jéem a xool ci kanam te xam ne yàlla suñu borom maa nga sam yore du jeex ku jëf mu jox la ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp man mi ak Moussa bi ñoom ñi ak ñi ni sama gannaaw fekk woon démb day fi doon ni képp ku fi teew sa xol sedd na ndax moom dafa war a rëy ndax Baye Fall dafa yéeme sëñ Fallou Fall sëñ Moudou Fall dafa am lu ma sa wax lu ma fekkee ñu jox ko addi ja si ngooña lañ joxe woon daaw ñu joxe ko ko ren mu ne Baye Fall du loolu donte day tege ñaar téeméer it day day jëm kanam waaye du arrière kon na ngeen jëf seen xel ci ne lu ñu def tey bu dee ne dañ da jëm def lu loolu mooy posté bi mooy ndigal li Baye Fall nag moom kilifa yëpp maasa nañ ci ne bu nekkee ci ndigal bu ndigal jógee mu jëf def ca lam war a def xaar ne ndigal li feek ndigal ñëwaatul mi ngi ci kaaraange mi ngi ci lépp yon murid nak jëf jël la ñoo ngi ñaan yalla sama borom téw ak ay doon yu bari lool ñaan sama borom digël kala fi mu yóotu fi mu jëm yalla nga sama agalé lu kaw njortam man nak sama cant sant na sëñ waaye ma ngi sant gëna sant eh, talibé talib magi ndax fañ jàppoon metti woon na lool waye nak fi mu ñi ngi sant yalla baax di ñaan yalla sama borom ñu gëna sant di gën a liggéey tok Cheikh Rafal fu ñu toll ndigal nak bu jàllee lén nga ñëw ñu fa seen japp suñu témir loxo té xamni ne do nga tax a jariñu sëñ faalu mag nak mom kenn mun koo kenn mun moom dara ndax looy wax rek am na lu mu bàyyi xam naa daal li bëgg ak teg fa tànkam ku topp ci ginnaawam li nga bëgg am si Cheikh Fall da nga ko am ilaaha illallah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 laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah